nekkul doom état embryonnaire lañ la wax. xam nga la embryonnaire ñun. pour l'avortement médicalisé. mais soo ko bàyyee doom lay soo ko bàyyee doom lay jur ëllëg. mais amul doom yow ëmb na yow ba ko rek deful dara. ñaar ko séq ñaar ña ko séq. ba nga xam ne ñoom état embryonnaire. Eh, ah waaw xam nga wax ko dégg waaw dama ne ñun. waaw néew ñu nag doom bi rek dañ koy avorté loo parce que dafa am ah, doom yi dafa am doom yi wax euh, xaw ma avortement médicalisé yi père. <laughs> ça ne peut pas. ñu ngi dugg de. man au début bi ma. ñu ngi dugg de. li ay jigéen c'est ay moroom yu jigéen. s'il vous plaît. li gars yi wax avortement médicalisé bii. ça amul sax raison d'être. sénégalais yaa ngi yàq biir ni mu leen neexee clandestinement. matin midi soir donc lii. du mm-hmm. débat pour man. man mm-hmm. lii ah. déggoon naa ay. déglul Sofia déglul ah? Sofia. Ah? mu siiw ci man mii. Sofia nga ne akaf ñu fay bari. daan naa dégg ñu ne diw mi dafa ëmb. Ah? Mohamed Mbaye Mohamed Mbaye ma tuuti nga dellu si kàddu bi. moom laay wax. Sofia dellul fi nga nekkoon nga ne ak cee. no dafa ne dafa ne avortement bi jarul sax muy nekk. parce que nit ko fiy def ndaxte waaw nga tontu ko ne ko. ñu bëri tamit ñu leen ciy jënd leen yóbbu nungu si. nungu si waaw donc man je crois que bu fekkee bu fekkee dañu bëgg a sauver xale yooyu. Hmm. nañu commencé xool ñan ñooy def avortement clandestin yu bëri. Hmm. Sofia li nga laajte dafa am solo. Hmm. waa ji dafa ne. bu fekkee avortement médicalisé bi yaa ji bëgg nañu dind ko. après naka la koy dimbalee pourquoi mënuñu bàyyi xale bi. waaw. di ngeen gis bàyyi ko. <laughs> d' accord mais. j'ai pas dit pourquoi muy dama ne naka la ko mën a dimbalee moom laa lay xam ne da jàpp noonu. Mhm. mu wàññeeku. doom boo ak ki nga bëgg. Mhm. ak doom biñ la forcé loolu mënul sax bokk. Mhm. c'est diamétralement opposé. Mhm. xale boobu yaa jiitu xale boobu yaa waaw kay. falaa yegg si may ma may ma xale boobu may ma may ma xale boobu day judd. yaa ji xool ko. chaque fois mi ngi koy fàttaliku maal bi ñu ko def. l'école faat ko bala moo judd. non non non léegi kon faat ko bala moo judd. non may ma man maa la wax ba léegi est-ce que dégg nga ma ne faat ko balaa muy judd. Ah. mais ah, Safia yow yaa ne toujours Safia non Moussa xaar leen ma wax waaye bu ñu wax a doom yéen a ngi yàq. yow nee nga da nga koy xool même laaj bi ko doom bi. waaw ah, mais non loolee léegi bàyyi leen maa ngi koy dégg mais bàyyi leen wax dara waaw léegi nañ déglu wax dëgg dëgg nee na di nga mer di nga mer sas ko waxu loo sofi néew di am mais mais doo doo leen may di yeggali ah, xaar leen dama ne léegi euh, soo may ma s'il te plaît papa s'il vous plaît euh, oustaz may ma rek mu intervenir ñu dem ci keneen s'il vous plaît. loolu dafa am importance aussi. xam moom laa ne. xale boobu doom bi nga xam ne da ko am si bànneex. ak doom bi nga xam ne dañ la ko imposer. Mhm. force la ko def la ko. waaw c' est diamétralement opposé. nangu xale bu juddoo yaayam daf koy bañ rek. waaw mhm. yaayam day rek. ñaata jigéen ñoo jël doom. Hmm. jigéen yooyu. Hmm. jur ba pare ñu ne kii ñu def si saaku wala ñu poisonné xale bi wala ñu yóbbu xale bi rek te l' enfant rek si ñàkk li waa jooju wax je suis d'accord ouais. mais on n'a pas mm Sénégal mentalité boobu mm. pour mu juddu ñu jël ko yóbbu dans des nga xam ne kenn du la identifié yow sa doom sax doo xam ne bàyyi nga ko fa mm-hmm. pour ëllëg moo am ay traces mm-hmm. duñ jël sa tur duñ jël sa dara kooku c'est important moo tax bu fekkee nag jigéen boobu day demee ba yi oustaz ñun on est au Sénégal xam nañu lan la Sénégal ay kan mooy baayam dañ ko violé woon. Mhm. kan mooy baayam dañ ko liyoon. waaw dina ko dégg de dina ko per dina ko dégg. waaw mais kooku tamit. nangu naka lañ ko mun dimbali. waaw dina ko dégg de. dafa ndànk rek waxuma ba léegi waxuma rey. mais kooku tamit moom mooy li waaj a lekk mooy li waaj a laajte. da ngay toog. ASECA fii ngay gis koo xam ne defoon na dara 1980. waaw mhm. ñu am benn problème ndaw sénégalais yi rappelé ko lu mu def passé yëpp. Mhm. mais nañu xalaat jànq boobu tamit. xa mhm. boobu ñu ko teg. waaw naka ko la sénégalais di rappelé kooku naka lañ ko mun a aidé. ah dina ko dégg de. d' accord nañ ma may deux minutes sa photo internet te yaa ngi ci télé wala suufi bu ndaw di nga dégg ku ne day mu sa yàgg dooj li la yàgg bëgg loolu nature sénégalais la même nga nekk imam taxaw di jiite sax dañ di non oustaz Mouhamed xam ne ay temps dafa daan petit cas dafa daan petit cas dafa daan nangam suñu culture la ay chemi yaru la gis nga ñaari baat la man ma lay wax koo xam ne bu fekkee papa moo ko teg loolu ñu koy ne bàyyi ko ëmbal mu koy déggaat dem ba am 30 ans dégg nga bi mu màggee gis nga dama lay déglu xoolal Sophie xam nga waa ji sànq nee na moom ah? mooy am problème 12 ans 12 ans xaaral papa pourtant waa ji dafa ne dañ ko ko def waaw moo ne góor la xam nga ëmb amu ci. mais xamagoo kan moo ko ko defee mais xel maa ngi yëngu. xamoo ndax jigéen ak ko def. waaw wala góor waaye mais def nañ ko ko. Mhm. mais pourtant xam nga jëlee wu ci ëmb tey. wala wala yóbbuwuñ ko ci xaw ma psychologie la ñu ko. dafa dem dem na waaw ala bi nekkee ma. la dem responsabilité ma. waaw mais la benn baat suufi. kii Aïcha. Mhm, mhm. pour ma dimbalee leen ndax sa yar. gis nga euh, li ñu bëgg a tëral. ci gàttal l'islam daf ko tere. benn bi ci des mooy képp ko ne ci biir bu médecin waxul ni feebar na feebar bu nar yóbbu yaay ji euh, alaxira ah. lislaam ni yàlla maye ni nañu dindi biir boobu bu ci amul keneen ku ci participer yàlla nee na bu yowmal xiyaama wa isal mawudat doom yi su ilat dinañ leen laaj bi ay zan bi ban bàkkaar la ñu def xutilat ba ngeen rey leen oustaz pour yow lan mooy solution bi nga xam ne <laughs> moom mooy tax ah. avortement médicalisé bi duñ ci am recours Benoît wax na ko sànq. parce que temps bi li si des bëriwul. Benoît wax na ko sànq. Ah. parce que tey li ëpp solo ci àdduna bi su la yar. du jàmbaaru way jur innaka laa tahdi man ahbabta walakinna Allaaha di yahdi man yashaa euh, alxuraan dafa ni kenn mënta jubal kenn yàlla mooy jubal ku ko neex. mais responsabilité mooy jomb. tey amul benn amul benn argument bu ñu la mën a tegal lu dul jomb xam nga jomb mooy lan am na jigéen ju am personnalité. jigéen ju diin jigéen bu góor ñemewul sigi xool pourtant bu guddee mais ñi koy siif dootuñu xool ni kii kat bañ koy seetaan wala nangam ku diiñ la parce que seen bëgg-bëgg moo leen ci yóbbu mais doomu aadama bu xasee ba jomb rek lu nekk yàlla mën na ko ci suturaal mais quant à amul beneen at boo xamante ne war nañ ko mën a def argument buy tax li wàññeeku ci dëkk bi lu dul lenn bu fekkoon ni li li li Benoît wax atte yàlla mu ngi dox ci réew mi ñu kenn koo xamante ni tey dafa dafa def naka sudul noonu ñëpp teg ci seen bët seen TV ñëw beneen tele ñëw ñu jël ko dóor téeméeri at ñu ni charte baa ngi ñu tegoon atte yàlla kon dëkk bi kenn du jàmm mais voilà comme nit ñi at ratt nañu atte yàlla fi mu toll nii bu ñëwee am na ku ku violé sama benn waay bu neex dafa dañ ma koy faral di nettali euh, dañ ko ci mus a tëj ci ci affaire viol nee na mu génn di am fu muy dem benn xale bu jigéen ni ko. moo violé wala violé wul. xaw ma moo def xaw ma moo deful daal waaye Liberté jot nañ koo tëj nee na bi mu génnee mu am fu mu jëm benn xale bu jigéen ni ko gannaaw doo ma baal tëjal ma sama cité ngoos mun ko wol waajee man dem naa ba ñëw ça veut dire liñ ko tuumaal. xelam dootul xalaat ka ni jigéen bu ni ko kaay tëjal ma si seen bu ni ko dem naa ba ñëw parce que jot nañ ko tuumaal tëj ko ah. yaa ngi dégg tiit na tiit boo xam ne moom jàpp na ni bu tëjalee ah. jigéen si seen goosam dañ naan ko yaa quelque chose mais bu ñu béralee euh, bu noir bu bëggee li wàññeeku ci faw ñuy béral pen bi ñuy teg nit te mooy penu yàlla bi mu wax ni man maa bind jaam maa ko bëgg ngir yàlla bu nit njaaloowee te ñeenti nit teg ci ba donte yàlla bañ na ko njaaloo mais bëgg na sutura bëgg na lu wóor bëgg na lu leer ndax mu ngi daw tuuma nañ leen ko taaj nañ leen ko nañ leen ko dóor téeméer yat seenaa Omar ibnu Xataab mooy ñaareelu xalifa yonent bi doomam dóor nañ ko téeméeri yat Omar ibnu Xataab nga xam ne mooy mooy mooy deuxième personne boo xam ne moo yor xilaafa yonent bi doomam bi mu ko defee dañu koy dóor muy di ko dóor xoolal ni doom neexe di ko dóor di ko dóor ba doom ji ne ko papa may mama naan ñu eggali dóor yi mu ne duñ ko may mu naan ñu dóor ko ba mu sedd. téeméeri téeméeri yat. loolu ngay mais jàngale boobu bu fekkoon ni mu ngi dox tey ci jamono bii mu toll nii. loolu du am mais comme jàngale boobu amul mi Aïcha Mm, si si sa yar parce que man démb bi may jàpp féminin boo togguloon damay jàpp ne parce que ñi may jot a gis dañu am sañ-sañu tontu dañuy ñàkk kersa dañuy dañ nga am ma ne est-ce que du kon lii mooy féministe mais ni nga toogee sa comportement sa yar sa daal ak ni ngay dégloo nit ñi ñu ah bu leen justifier ne dañu dañ nga am dañu waaw defal nag man wax non man laa wax ba tey déggoo ma de moom dama ni déggoo ma de dama ni bu kii damay jàpp ni benn sañ-sañ buy dox la am nga waxuma ni loolu jàpp ne daal ñoom ñëpp ne mayaa la ñun voilà dang la parce que voilà mais bi ma gisee kii toog bi ma gisee kii mu toog dama ni voilà ah, ah, bi ma ni kon ñoom seen cons ko li ñu liggéey nekkul liggéey kenn ku bokk jikko bokkul ak melokaan